waxtaan bi neex na bala ñuy jeexal rek ñu dikk ci benn question dañu gisoon temps yi la passé nga posté benn vidéo boo xam ne yaa ngi ko dugal Instagram ak YouTube euh, pour ay nit ñoo xam dañuy def ay compte faux compte euh, pour série doomu buur ñu bëggoon a xam di ci arnaqué nit ñi ak yooyu noonu ñu bëggoon daa nga indi ñu ci leeral balay émission bi di jeex ñu xam ci bu baax daal. waaw xam nga loolu dafay am lu bari. parce que dafa am ñoo xamante ni bii bu ñu gisee benn mbir dañu cay bëgg profité quoi donc man nag posté naa vidéo comme euh, xamal askan bi ni leen série Doomu Buur amul euh, compte YouTube moom lu muy def ci Sango Gouma TV lay jaar donc amul Instagram extra extra extra extra. foofu série Doomu Buur bu gisee benn faux compte def. Seri Dombour def benn numéro am ci kaw ni ku bëgg a publicité wala ku bëgg a jàppale wu tur bi wala nangam am koo xamante ni bii amoon na yéenay jàppale wu ba day jël xaalisam def ko fa ko dèjà nag xaalis boobu dafay mujj nax saay moo tax man ma def vidéo donc lancer message bi xamal leen ni leen Seri Dombour amul compte donc fan yi sax donc ubbi nañ ci benn paas. Facebook pour euh, mën a dakkal yenn yi en même temps di si jàllale suñu information quoi parce que tey du ñàkk xëy na benn nit mënoon na am yéene dugal ci daraam bu gisee lu mel noonu mën na ci dugal xaalisam quoi su boobaa xaalis bi dafay nax saay moo tax euh, ma génnoon def vidéo boobu aussi tamit di wax gars yi donc nañu vigilant quoi parce que tey boo duggee euh, exemple Facebook Euh, wala nga dugg YouTube wala nangam nga def série Dombourg da ngay gis yu bari quoi léegi nag doo ci xam ban la comme euh, ki nga xamante ni bii moo bëgg jël xaalisam def ko ci wala mu bëgg publicité donc il faut nag mu visionner quoi tout tey tuuti. xam fi muy euh, que tey nekkul normal nga am numéro boo xamante si ne tey jii ku bëgg liggéeyandoo ak yéen wala boog ku leen bëgg a jàppale wala boog mu bëgg def ay démarches si seen biir troupe bi léegi nan lay def parce que je pense que ni ngeen am numéro bu leen nit ñi di jotee moo gën a yomb comme ni vidéo yi nit ñi di leen def ay arnaque wala dara. ah waaw pourquoi pas troupe bi am na am na benn numéro boo xamante nit bii képp ku leen bëgg a jot. ci leen ni jote parce que boo dee xool suñu théâtre yu bëri saa buy jeex am na benn numéro buy nekk ci suuf su bindi jeexee da gis contact en même temps même au série doomu buur bi ñu mujjee def su bind bu jeexee da gis benn numéro ci suuf boo xam ne contact la ñuy def képp ku ñu bëgg na contacter foofu ngay jaar quoi déjà numéro bi euh, ci ñenn ci gars yi ñoo ko yor appel yi nag dafa xawoon a bari tellement ba mujj commencé yàq liggéey bi moo tax ñu bàyyi whatsapp bi rek jox instant bii piis bi dañu ko dindi parce que appel yi ñoo bari mais képp koo xamante ni bii am nga publicité wala nga bëgg liggéey ak waa série Doomu am ay conseils yoo leen jox wala nga bëgg am loo leen taxawal donc boo jaaree ci numéro boobu whatsapp bi boo ci envoyé message danañ la tontu en même temps tamit dinañ am link ak yow aussi ti man nga dem ba am suñu numéro euh, whatsapp spécial quoi wala appel normal boo xam ne dañuy mën di déggante loolu moom wa c'est normal am nañ ko quoi